alhamdulilahi rabbil alamin nu sof fi nu yemoon ci jataay bi sunu boroom subhaanahu wa taala lii mu wax fii lu am solo la waaye lu mat a bàyyi xel la mooy képp koo xam ne jub nga koo xam ne tegu nga ci aw yoon nanga ko sante sunu borom subhanahu wa taala xam ne bu la yàlla seetaanoon bàyyi la ak sa bakkan bàyyi la ak saytaane ci la muy woote moom saytaane ak nam koy rafetale ak sa bakkan mi ni ko yàlla binde mooñ ko ci bëgg loo xam ne safaan la maanaam nga xam ne bakkan liy cosaan ci moom du mbaax waaye nag bu jëlee te jëlantuwut li suñ borom subhanahu wa taala wàcce jëfandikoo ko day daa di sell day daa di laab ci ay bakkaar ak i ñaawteef bakkan da ngay fexe ba bàyyi bakkaar yi bàyyi ñaawteef yi lu jafe la ndax bakkaar daa bëgg yu mel noonu waaye nag boo góorgóorloo ba bakkaar yi ak ñaawteef yi nga teg leen fi suuf sa kem kàttan boo xamee ne sa bakkan ah xiir na la ci def ko itam muy lu ñaaw wala loo xam ne bakkaar la nga jéggluwaat sa borom subhanahu wa taala mooy yére bi nga xam ne moom nga sol daal saa yu nekk daa war a set saa yu nekk daa war a weex tàll su amee ab téer wala tilim tilim bu ci nekk nga fóotaat ko te bañ a tayel ci fóot yokkaat say xasanaat say jëf yu rafet loolu dana la dana la dimbale ba ëllëg ah booy dem ci suñu boroom yàlla nga mën a yóbbaale lu baax bokkoon na ci ñaani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha yow sunu boroom yàlla maa ngi lay ñaan saa bakkan bi nga def ci ak ragal yàlla maa ngi lay ñaan nga sellal saa bakkan bi fóotal ma ko ndax yow yaay ki gën ci koo xam ne ma ngay fóot bakkan yaay ki gën ci koo xam ne ma ngay sellal bakkan ndax yaay kilifa ak bakkan bi yaay boroomam kon lépp mi ngi nekk ci buntub rek sellal sa bakkan sa kem kàttan sunu boroom yàlla nee na koo xam ne góor-góorlu na ci bakkanam ba sellal ko kooku texe na qad aflaha man zakkaha boroom bi tekki ne wala ya'tali bum giñ wala ya'tali mooy bu mu lan bum giñ ulul fadli ñi nga xam ne waroomi ngëneel lañu minkum ci yéen wa saa doon ñu yàlla baaxe alal seen alal yaatu lool ñooñu rikk waay buñ giñ ay yutu di bañ a jox di bañ a joxati ulil qurba ñi nga xam ne ñu leen jege lañ ci ak bokk ñi nga xam ne ay masaakin lañ amuñu dara wal muhajirina ñi nga xam ne ñu gàddaay lañ fi sabilillah ci yoonu sunu borom subhanahu wa taala buñ am lu leen naqari buñ am lu leen metti rek tax ñu bëgg a dakkal lu baax lañ doon def di ko jëme ci ñooñu laay ji mi ngi wàcc ci sayyiduna abu bakar radiyallahu anhu mistax daa doonoon ku ñàkk doon miskiin waaye nag dib julit dib julit ndax bokk na ci ñi gàddaay bàyyi ko Màkka ñëw Madina Seydina Abubakar daan ko dimbale di ko taxaw di ko dundal yàlla dogal bi xew-xew bi amee mu tabbi ca bokk ca ña doon wax ci sunu yaay Aïcha radiyallahu anha ba loola tax Seydina Abubakar mi gën ci xeet wi li ñaan ak mat moom sunu boroom rek a ko def am lu ko metti bam ne daal lam ko daan jox lam ko daan dundale daf koy bàyyi sunu boroom subhanahu wa taala ci la wàccee laay ji wane ne ñi nga xam ne ñu am ngëneel lañ ci yéen ñi nga xam ne ñu am alal lañ ci yéen rekk buñ giñ ci bañ a joxati ñi leen jege ci ak bokk ñi nga xam ne ay miskin lañ ñi nga xam ne ñu gàddaay lañ ci yoonu suñu boroom subhanahu wa taala buñ giñ ci di dakkal lañ leen daan defal ci lu baax doonte ñooña tooñ nañ leen wax nañ ci seenu njaboot loo xam ne waruñu ko wax suñu boroom subhanahu wa taala gis nga yow mi nga xam ne yaa ngi def lu baax ki nga xam ne moom ngay jël lu baax li di ko di ko ko defal bu la waxee lu la naqari wala mu def la lu la naqari wala mu def ko sa njaboot bu mu tax mukk lu baax loolu nga di ko dakkal ndax lu baax loolu gannaaw nga xam ne jëm yàlla rek taxoon nga di ko defal sunu boroom yàlla mi ngi fi te bokk na ci ak mbaax mooy nit wax la lool naqari mbaa mu def la ko mbaa mu wax ko sa doom mbaa mu def ko sa doom mbaa mu def ko sa soxna nga xam ko ba noppi wal batiku lu baax la nga ko daan defal nga wéy di ko ko defal loolu nag yombut loolu yombut te loola day tekki ne yow mii lu baax li nga ko daan defal wax dëgg yàlla ah moom tuumaal gumu la tuumaal mbaa mu tuumaal sa doom du tax mukk mer di la jàpp ba nga koy bàyyi waaye rek doomu aadama moomatul rek Seydina Abubakar li nga xam ne ndeysaan jàppoon na ko ba tax mu bëggoon a bàyyi loola te yàlla bëgg saa yu nekk aw yoom di wéy bañ a dakk moo tax yàlla teg ko ci aw yoon yàlla wax ko wan ko lim war a def borom mi nee na wala yaafu nañu jéggale yàlla nee na nañ jéggale jéggalekat bi nee na nañ jéggale wala yaafu wala yasfaxu nañu baale borom bi nee na rikwaay nañuy jéggale rikwaay nañuy baale loolu li muy tekki mooy kon ñi ngi wax ak kan Seydina Abubakar li ko metti ci mistax ba tax mu bëgg a bàyyi bëgg a dakkal lim ko daan defal borom bi nee na déedéet na ko baal borom bi nee na na ko jéggal wal yaafu wal yasfaxu daat ci teg ne alaa tuxibbuun xanaa bëggu leen ay yaxfir allahu lakum yàlla jéggal leen xanaa bëggu leen yàlla jéggal leen tontu li mooy axakay bëgg nañ yàlla jéggal nu gannaaw danoo bëgg yàlla jéggal nu kon nanuy jéggale gannaaw danoo bëgg yàlla baal nu kon nanuy baale foo fekk nit koo xam ne danaan duma baale duma jéggale daa mel ne danaan bëgguma yàlla baal ma daa mel ne danaan bëgguma yàlla jéggal ma nit ñi dañoo dëkk ci tooñ te man ko lool te duñ ko dakkal léeg-léeg nag am tooñ goo xam ne fayu ga nga koy fayu mooy ak maandu te it mooy tax kooka dakkal ko waaye bu fekkee ne daa am tooñ yoo xam ne baale ga nga koy baale ak jéggale ga nga koy jéggale mooy tax waa ji ëmb kersa soo kersa joo xam ne dana ëmb kersa ba àgg foo xam ne daanaka rek duutu mën a delluwaat ca loola moom baal ko mooy gën foofu itam ñu bàyyi bàyyi ci xel am na koo xam ne da nga koo war a baal ndax baal gi daa am lu mën a jur lu baax mën na koo jural duutu la tooñati mukk ci àddina mën na koo jural mu xam xel ne yow mi yaa yor jikkoy lislaam waaye am na koo xam ne soo ko baalee boo liggéey mu defaat la ko am na koo xam ne boo ko baalee boo liggéey mu dalaat ci sa kaw ku mel noona doo ko baal alxuraan da ngay booye da ngay boole laay ngir mën koo dégg ay borom bi dang yooyu yàlla danga koy boole ngir nga mën koo dégg borom bi day wax ne fa man afaa wa aslaha fa ajruhu ala allah lan moo tax mu indi fi baatu wa aslaha su doone daa am jenn waay joo xam ne otoom la yor di ko dawale nu mu ko neexe ci koñ bi ñu naan ko waaw doomi jàmbur a nekk ci koñ bi te nga bàyyi yi ngay def ngay lii weñ ak weñ la kenn du ci fo mu ne toppal fële def ko ci suba gi mu jik ko ngoon gi mu defaar ko mu jik ko nga nekk di wax mu da ta bàyyi rek ba far fiir ak gone mu dee dañ koy baal déedéet kooku baal ko dug defar kooko baal ko dug defar kooko teg ko ci aw yoon mooy ak defar bu dee nag koo xam ne ndeysaan daa juum dafa juum rek ba njuumteem loolu sax jural na ko daanaka mënatul a génn ngir jéggalu suñu borom yàlla ak baalu suñu borom yàlla bakkan bu ñu rey ci njuumte lam laaj lépp ci kafaara ma ngi koy def ku mel noonu boo ci yokkaatee di ko tegaat leen day metti lool kooku ban baal ko mooy li gën kii nga xam ne tey jii lim la def ci sa njaboot la ko jëmee dalaa xas daa xas sa doom ju jigéen daa xas sa soxna kooka soo ko baalee baal gi nga ko baal mën naa tax bu ëllëgee loolu du ko dalati mu ko ci àddina man day xam naa koo xam ne rahmatullahi alayhi yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko ku ma noon a baale la xam naa ci moom ñaari taxawaay yum am yoo xam ne xam naa ne maa ngi ñaan yàlla baal ko ba faw ci ñaari taxawaay yooyu benn taxawaay bi moom fi la ma fekk daa am ab camion camion ngeen di wax yéen camion waaw dégg nga daa am camion boo xam ne daa fiir ab sëtam boo xam ne moom moo jur baayam loolu falam fa la ma fekk man booba mi ngi toog ci buntu kër bi xam nga dañoo siiwal ci noppi safoor yi bu ñu defee lu mel noonu dañoo war a daw dañoo war a daw dañoo war a daw ba yëfi sedd ñu ñëwaat bu dee ñoo xam ne bëgg nañu ak njub bu yëfi seddee dañuy ñëwaat war na ne maa def loolu waa ji bi nga xamee ne fiir na kim fiir ci digg tali bi néew baa ngi ci digg tali bi néew bi mu wàcc bëgg a daw maami gone gii tëdd moo ko woolu man sago soo sax laa xamul sago su mel noonu maanaam sago ku yàlla joxoon sago la daal di koy woolu mu ñëw mu ne ko yow dañ laa war a dëfal dañ laa war a ñaanal néew baa ngi ci kaw tali bi de ne ko bul ma wax say bokk bëggumaa xam ñan ñooy say bokk fekk moom ku xamoon ak bokk la néew na nit wax ko ay bokkam te xamu ko mu ne ko bëggumaa xam say bokk bëgguma koo xam ndax su ma la jéggalee kon day mel ne xam gi ma xam say bokk moo tax ma jéggal la bëggumaa xam itam kan mooy sa kilifa ci dëkk bii maanaam dañuy wax ab sëriñ bëgguma koo xam ndax su ma la jéggal day mel ne kookaa tax daa ne ko tàllalal loxo yi mu tàllal ay loxoom mu daal di koy ñaanal bim noppee dafa dëgg tànk yu dëgër dugg ci biir kër gi fekk fa bàyyi gone gi war koo bette ak xibaaru sa doom faatu na xam nga lan la ko wax li xew mayuma la yow ki ko def li feeg yaa ngi dund mayuma la nga teg ko bët te kilifa la booba doom ji déggal na ko mu ne ko mayuma la nga gis ko waxuma la ak di ko teg bët kooka topp gum topp ndigal tax na man dama ko ko laaj benn bis fekk lii lii maanaam man fekke naa xew-xew bi waaye lii ñu ko wax nii man dégguma ko woon ma laaj ko ma ne ko ndax sa baay moo la waxoon loolu mu ne ma waaw moo ma ko wax daa ne ma loolu tax na ba ma nekkee ca réew ma ki nga xam ne moo moomoon camion ba ka nga xam ne moo moomoon camion ba nga xam ne ab safóoram moom moo moom la ndogal gi dal boroom camion bi dañoo bokk nekk ci réew mi mu am ku muy nettali di ko wax maanaam mbaaxu góor googu fi mu ko mënoon a yóbbu ci yoon ak lim ko mën a mënoon a teg te tegu ko bi mu koy nettali dafa àggal rek waa ji daa nekk kooku day xam naa ko te ki jur doom ji yé yaag moom yéen a bokk nekk fii ci dëkk bi mu ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko xaaral ma ma jox la numéro mu daal di koy jox numéro moom moom ko nettali de mu daan ne ma karrub téléphone woo ma daan ne ma yow dama doon waxtaan ak menn mbokk di wax ak jéggal goo xam ne dañ ma koo jéggal jéggal ko saab safoor ci xew-xew bu rëy bu mu defoon kooka ne ma ki ki jur xale bi mi ngi fii ci réew mi loolu moo tax ma lay woo bëggoon fee ñëw bëggoon laa gis diglu bu baax dama laa bëggoon a gis lan la ko tontu dane ko dañ maa tere ma gis la dañ maa waxoon ne ma ba àddina di jeex bu ma la gis sëñ bi xoolal gi mbaax xoolal gi mën a jéggale beneen yoon moom dañ ko plainte yóbbu ko ci yoon bis bi nga xamee ne ci la war a wuy ji moom koo ki may wax ki nga xam ne moo ko war a yóbbu amut lu mu war moom moo takk ab sareet ñëw ne ko ndax am nga loo war mu ne ko déedéet mu ne ko bismillahi ki mu yóbbu mooy ki nga xam ne kookaa ko kalaame kookaa ko jox plainte bi te kooka bis boobu amut lu mu war mu indil ko ab sareet ne ko war ci ñu ànd dem bañ demee commissaire diglu leen ñoom ñaar ba mu noppee fa saasa daa wax góor gi ne ko kii dalaa tooñ bëgg laa tëj kii dalaa tooñ ba noppi bëgg laa lan bëgg laa tëj waaye li am ba des mooy kii du génn fii te tëjuñu ko góor gi ne ko mukk ci àddina xalaatuma loolu kii bi may ñëw damaa takk saaw fas mu néew doole ba tax may indaale ko su may dem maa ko yóbbuwaat noonu la ko baale noonu la ko jégalee borom bi nee na wala yaafu nañuy jégalee wala soxu nañuy baale alaa tuxibuuna xanaa bëggu leen subhanallah subhanallah xanaa bëggu leen an yaxfir allahu lakum yàlla jégal leen man fii bokk na ci li nga xam ne moo fi gën a daw sama yaram mooy yàlla ci bopp ni mu bëggee ku baale man a yàlla ni mu bëggee kuy jéggale ni mu bëggee kuy baale ba tax moom mu di ko santaane ba noppi naan xanaa yéen ñi may sant ngeen baale yéen ñi may sant ngeen jéggale xanaa bëggu leen ma baal leen xanaa bëggu leen ma jéggal leen alaa tuxibuuna an yaxfir allahu lakum sunu boroom subhaanahu wa taala ak bëgg jéggaleem mëni su ko misaal wallahi mëni su ko misaal yàlla xam ne mëni su ko misaal yàlla yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko sunu yaay Aïcha laajee ne ko laylatul qadri su yàlla dogalee ma dab guddi googu noonu lan laay ñaan dane ko da nga naan allahuma innaka afuwun tuxibul afwa faafu anni yàlla ab jéggalekat nga te dangaa bëgg jéggale tuhibbul afwa mana yàlla ni mën a jéggalee noonu la bëggee jéggale mana melo woowu day aw melo woo xam ne dafa takk ci moom doon melowu dëgër ci moom ba nga xam ne ku koy def sax moom da lay bëgg waaye soxor iñaan di topp doomu aadama yi dégg nga ma ah masoon naa am benn bis am kuy waxtaan ak man fekk booba dañoo rajo diisoo bii laa newoon booba bi ma bi ma fa jugee am ku ma àndal damay bañ a jaar ci tur yi di jum waaye moom nettali bi fàttewuma ko dane ma damaa nekk ca réew ma yàlla dogal ma doon def waxtaan ci buntub jéggale ak ni mu amee solo jéggal doomu aadama ni mu amee solo ma ciy wax di ci wax di ci wax bi jataay bi jeexee li ñaan léeg-léeg genn kàddu gu baax man naa defar lu bari bi yàlla dogal jataay bi jeex ma ki ma doon yóbbu sama kër nga xam ne ca otoom laa war ma gis ko muy jooy rek di jooy jooy yu méttee métti ma laaj ko lan la lan la lan la mu ne ma li nga doon waxtaan ci mbirum jéggale daf maa jàpp daf maa dal dafa am sama jenn mag joo xam ne si ma nga Sénégal sama digganteeg moom daa am lu fa jaar loo xam ne daa koo bàyyi woon complètement dama ko daggoon complètement wàcc moo tax sax maa ko daan jëlal am tabaski waaye daa ko bàyyi woon waaye lii nga wax nii nii ci jotaay bii ci buntub jéggale ak nga ne li jéggale ak njéggale ni mu amee solo tax na léegi su may wàcc danaa ko woo xamal ko ne ko ren jii nii bul jënd tabaski maa la koy jëndal jéggal naa ko ba faw allahu akbar yow mi nga xam ne yaa ngi may dégg ci kaw suuf si te nga xam ne ay nit dañ laa tooñ te jéggal gi nga leen di jéggal du leen wàññi dara du la wàññi dara jégal leen jégal leen lan la lay wàññi da ngay am féex da ngay féex xoolal kenn ci saxaaba yi ab xare ñu war a joxe alal amut alal ñu war a am gëléem war ci ngir dem muy tabuk tabuk la woon atum juróom-ñeent ci gàddaay gi amu ko mu tëdd ba guddi mu xalaat xalaat xalaat xalaat lan lan lan la war a joxe te amu ko mu daal di xalaat daan ne sunu boroom yàlla maa ngi lay xamal ne man mii man lépp lu waay teg ci saa der bii nii moo xam danga maa jëw moo xam danga maa xas man a saraxe naa saa der bi saraxe naa ko man a ku ci wasa wax dara rek baal naa ko ci xol bu sedd guy dafa xëy rek yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ni ko yàlla xamale wàllu wax yu mu daane anak borom saraxu ki saraxe woon biig anak kan moo saraxe woon biig sarax boo xam ne yàlla nangu na ko yàlla nangul na ko saraxam boobu nit ñi tooñaa tooñ dañ koo man nit ñi dañoo mën a tooñ dañ lay tooñ léeg-léeg ci ay anam yu doy waar tuumaa la tuuma yoo xam day weex tal wax dëgg yàlla daa metti lool lool daa metti lool daa metti lool waaye cey bu la suñu borom yàlla maye xol bu ubbeeku boo yaatoo yaatu boo xam ne xol buy jéggale la da nga xam ne yàlla la dàq jéggale de mas ngeen a gis buur boo xam ne buur boo xam ne daa bëgg ñu déclareel ko mas ngeen a dégg buur boo xam ne daa bëgg ñu déclareel ko ci ñi nga xam ne moo leen bind moom leen maanaam bu dee buur bu bindee moom kenn la waaye daal ma joxe misaal meneen ndax maanaam mas ngeen a gis buur boo xam ne ñim yilif kon daa bëgg ñu déclareel ko bu subaa ci ne na nga xam ne moom ab baalekat la na nga xam ne moom ab jégalekat la dafa am jenn laay ju nekk suuratul xijri yàlla daa wax muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko nabbi waxu ko axbir de nabbi la ko wax mi ngi jóge ci nabba ay yu nabbi u ah tambi ala war a doon hanna a yu hanni u tahani a waaye kon jëlal am ba ay yumbi u imba an waaye xibaar bu rëy rëy la arab di jëfandikoo naba dama bëgg a waxam na nit ñi nit ñi ne leen ñan nga ma ñan ñan muy ibaad yi sama jaam ñi laa bëgg nga xibaar xibaaral ma leen yow muhammad nabbi ibaad yi nee leen anni man ana xoolal anni ana waxut anni anni alxafuur le dane anni ana maanaam man ci saa jëmi bopp alxafuur maay ki nga xam ne ku mën a suturaal ab jaam laa ku mën a muur ab jaam laa ba ay bàkkaar du feeñ waaye na nga leen wax ne arrahim man maay ku bari yërmaande loolu damaa bëgg nga xibaaral ma ko sama jaam yi xool leen xibaar xool leen xibaar xibaar boobu yéen bu ngeen déggee xibaar boobu xanaa war ngeen a sant yàlla war ngeen a am mbégte ah nun nin baree bàkkaar boos suñu borom yàlla di waxe noonu geneen laay moo gën a doy tuwaar qul yaa ibaadiya alladina asrafu waxal yow muhammad yéen sama jaam yi nga xam ne yaa ibaadiya xoolal nangu nangu gim nangoo jël ak yaa di ko di ko di ko taf ci boppam mana ñoo xam dañ laa tooña tooña tooñ sëñ bi ñu bono bono bono bon ba nga xam ne àgg nañ ca dayo ba ci bon nga nangu leen a taf ci sa bopp naan yaa ibaadi ba noppi woo leen yaa te koo jéppi mbaa nga mere ko doo ko woo da leen a woo ba noppi woo ko taf leen ci boppam yaa ibaadi alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah bu leen naagu ci yërmaande yàlla mana yàlla suñu borom fii ni mu fi waxee dafa doy waar maanaam bu leen da leen ko tere da leen ko tere maanaam ngeen di àgg foo xam da ngeen naan man su ma baalootee duñ ma baal loolu bu leen ko wax lu ci waay sàcc sàcc sàcc sàcc sàcc sàcc donte da ngaa sàcc sàcc sàcc sa ay juróom fukki at sàcc nga ko wala sax da ngaa rey nit rey nit ba rey ju- téeméeri bakkan rey nga ko ah wala nga njaaloo njaaloo ba am nangami ju- ay doom yoo xam ne yépp tëkkoo leen wala yasu billahi taala yéen ñooñu laay wax ne laa taqnatu min rahmatillah noo baax borom waaw nun noo baax yàlla noo baax borom maanaam sunu borom yàlla mbaax gi foo ko takk da ko weesu foo ko takk rek weesu na ko maanaam xoolal waxiin wi sëñ bi bu leen naagu ci yërmaande yàlla ah xoolal waajara yoon téeméeri bakkan ba noppi sunu borom yàlla baal ko nga xam ne ku dugg àjjana fekk ko mu toog sam yor place am mel ne ku masa naka jekk da daan jaamu yàlla fekk téeméeri bakkan rey na ko ah loo ci man loo ci man borom àjjana jee ko baal daara nga ci mënut yàlla moom maanaa li nga xam ne moom mooy mooy mooy liy dal doomu aadama mooy na ba bu xanaa bañu jégalu waaye ku jégalu waxuma la mu lay mu lay baal waaye da lay far bëgg laa lay far benn yoon inna laa yuhibbu tawabin yàlla ñiy jégalu da leen far bëggaale ñoom rawatina ñi nga xam ne dañuy jégalu saa yu nekk xam nga nag bii buur nag wax dëgg yàlla kum doon sa buur yàlla mii kum doon maanaa sa yàlla nga xam ne nangoo keneen doon sa yàlla ah seq nga ko koo xam ne si borom jéggal la borom yërmande la inna allaha xoolal yàlla fii waxut ne innahu ndaxte mënoon na ne innahu ndax gannaaw tur na allah mënoon na cee delloo damir waaye daal dellu si waat turam yi ne inna allaha na ngeen xam ne yàlla yaxfiru dunuba jamian bakkar yépp lay jéggale ay bakkar yépp lay jéggale ah bokkaale nag waaw dana ko jéggale boo ko jéggalu bokkaale mi nga xam ne day day yàq jikko maanaam day day day sippi ay jëf laa wax nga xam ne mu day mel ne mosoo jëf dara soo ko jéggaloo mu baal la ko yëmut foofu de mu daal di indiwaat ne innahu xool ji wax rek moom yàlla moom yi nga xam ne yaxfiru dunuba jamian huwa moom alxafuur arrahim alxafuur faul la tegoo arrahim fail la tegoo min afaalil mubaalaga mooy mooy baalekat mooy jéggalekat mooy yéremekat huwa alladi yaqbalu tawbata an ibadi wa yafu an sayiat wa yaalamu ma tafaalun mooy ki nga xam ne mooy nangu ak tuub suñ boroom daa bëgg rek ndeysaan jaam bi di dellusiwaat ci moom dafa bëgg loolu nag maanaam jéggalu jéggalu ci boppam noonu dañ ko waroon a dëkki suba ak ngoon mooy saabu bi gën a baax ci sunu bakkaar yi léeg-léeg ñu ne saabu xeme ñu ne yére bi ni mu tilime saabu xamee képp képp képp moo ko mën a dindi waaye léeg-léeg ay bakkaar àgg foo xam ne man a saabu benn benn saaboo ko mën a dindi benn saabu ban saabu la saabu jéggalu da ngay jébbu jéggalu suñu borom yàlla jéggal la baal la ba noppi wëlbatiku nag xool yàlla maanaam ni muy jëflante ko jaam man a baal jaam bi wana wëlbatiku yëkkatiwaat jaam bi man a kaw kaw kawal kaweel ko ba mel ne kii mës a def bakkaar su ma ji tabaahu rabbuhu lu ci dopp fataaba alayhi wa hada summa jtabahu rabbuhu fataaba alayhi wa hada yàlla ci boppam dalay baal njëkk ngay baalu summa taaba allahu alayhim li yatuubu yàlla moo lay baal ba noppi nga soog a mën a baalu mbo moo tax jamono ji ngay baalu amal amal njort lu rafet ci ne baal na la ndax su la baalu toon doo mën a baalu dalaa baal ba noppi nga soog a mën a baalu summa taaba allahu alayhim li yatubu inna allah huwa tawaabu rahim saaro bari ay rahim a ngi noonu mooy sooratu tawba saaro bari ay rahim moog sooratu nisaa yi ñooyam ay gafuur rahim ni fa bare ah alxuraan jëpp sax moom noonu la tëddee jéggalu sunu borom subhanahu wa taala yàlla na nu yàlla jéggal yàlla na nu sunu borom yàlla ci mbaaxam ak yërmaaneem baal nu bañ ñoo topp ci dara dara dara dara dara ngir sunu lompañ sunu borom yàlla xam ngeen lan la mujj a dénkaane ci alxuraan lan la mujj a dénk muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy nay baalu mooy nay jéggalu ci koo xam ne amuy bàkkaar ida jaa nasrullahi walfatx wa raayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja fa sabbix bi xamdi rabbika lu jurob wastaxfirhu innahu kaana tawaaba xaswatu tabuk mooy xeex bi yonte yàlla muhammad mujj a xeex ca la yàlla wax ne laqad taaba allahu ala annabiyi laqad taaba allahu ala annabiyi wal muhaajiriina wal ansaari alladiina tabauhu fi saa'ati al usra madina saar wii fa la wàcc fi la yàlla santaane wa tuubu ila allahi jamian ayyuhal mu'minuuna wala ayyuhal waxul ayyuhal muslimuuna wala ayyuhal fujjaar de wala ayyuhal munaafiquun de dañu ayyuhal yéen ñi àgg ci darajatul iman laay wax yéen ñi àgg ci darajatul iman yéen laa naan ngeen tuub jëm ci yàlla ah wa tuubu ila allahi jamian ayyuhal mu'minuuna rajof laallakum tuflixuuna ndax léegi ngeen mën a ñu ban ñu mën leen a ngeen mën a taxe moo tax ko xam jéggalu yàlla boo demee surtu Hud ñaari baat ñett mu ne wa an istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi yumatti'kum mataan xasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadla nga doxaat tuuti mu ne wa yaa qawmi istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi yursili samaa alaykum midraara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum nga doxaat tuuti mu ne wastaghfiru rabbakum inna rabbi rahimu wadud wastaghfiruhu fastaghfiruhu thumma tuubu ilayhi inna rabbi qaribun mujibun ah ay bi man bi buur xam naa ne ah wala ba abaalekat la maanaam maanaam moom tur woowu tur tur tur woowu tur xafaar kenn kenn mën naa dégg dudd xafaar ma de tur woowu tur woowu de xam naa loo bari bari bàkkaar de xanaa boo ñëwee ci xafaar boobu sëñ bi ah xafaar ah seet ko rek seet seet leen ba ay tawaab ak ay xafaar ay rahim ak ay yooyu noonu te li ci gën a yéeme mooy le moom bu la baalee ba da lay bëggaat fii ne nit ñi mën nañ mën nga leen def dara ñu baal la ba noppi wul ba diggu moom sa diggante jeex na ba faw waaye inna rabbi rahimun wadudun gis nga wadud boobu wa huwal ghafurul wadudu saa da lay jégal mooy wul ba diggu wul ba diggu bëggaat la ah ah yoon moo tax ku ku ku ku ku nar a dem sawara rek mooy koo xam ne si day day day ku yàlla yàlla dogal ci moom mu dara dem sawara rek waaye ku yàlla dogalul ci moom mu dara dem sawara moom sëñ bi yaakaar naa jégalu ak baalu te amul fenn fu nit war a toll ba jàpp ne bu jé daa war a bañ a tooj moo tax bokk na ci li li li gën a doy waar suñu réew mi mooy léeg-léeg ñu ñu ñu àgg foo xam ne ñu àggale nit foo xam ne dañ naan kooku jërëtul ñu koy jéggalul kooku am na problème fi ne ñu bëree bëri buñ tuddee nit duñ ko ñëmuñu ko ñëmuñu ko ñëmuñu ko jéggalul yàlla ko yàlla jéggal wala yàlla ko yàlla yërëm boo ko waxoon sax dañ lay xoolaat man da kan moo romb kan kan kan moo maana àgg foo xam ne si maana dañ naan kii daal dañ ko weesale yàlla di ko baal ndega Muhammad moo ko rombut sallallahu alayhi wa sallam léegi nii tey bu ma tuddoon kilifa ci réew mi daan na yàlla ko yàlla jéggal su ma ko baamuwaatee am ku ne hee lay wax ni li may wax leer na yàlla na ko yàlla jéggal laa wax waaye lu tax bi ngay dund soo soo tislee lu ma lay wax yarhamukallah yàlla na la yàlla yërëm laa la wax bu doon kooka noona sax bu doon jëmmu jooja ak lu mu baax a baax bu tisule saa wet loolu laa koy wax yàlla na la yàlla yërëm laa koy wax yërmande yàlla sa borom subhanahu wa taala moom lan soxla di àjjana ndax xamoon ngeen ne yërmande la wa amma alladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha xaalidun léppi àjjana yërmande la ah léppi àjjana yërmande sunu borom la subhanahu wa taala moo tax ak njéggal ak yërmande ñaari maanaa am néew moom la gën a soxla am néew moo tax sallallahu alayhi wasallam bu ñu masaana rob am néew ba noppi danaan jéggalu leen seen mbokk mi wastaxfiru istaxfiru li axikum ngeen ñaanal yàlla ngeen ñaanal ko yàlla mu dëgëral làmmiñ wi ndax ñu ngi koy waaj a laaj fa innahu al-aana yus'al wasalu lahu tasbita loolu nag ñu bëree bëri dañu fekk aérobe waaye duñ ko wax dañu fay nekk di joxe yeneen yoo xam ne si wax dëgg yàlla xaw fu mu jóge man loolu ma xaw ma xaw ma ko de ku ko xam nga jëw wax ma ko maanaam ku ko am xam nag da nga ma ci wax hadis boo xam ne càlla la nga daa dem ba ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala nga indil ma ci genn laay ci alxuraan ndax dañu bëgg ñu waxante dëgg nii rek li nga xam ne ñu ngi koy jàng jamono jooju loolu ci tawxiid la aju mooy lixlaas maanaa lu baax la moom lixlaas moomu waaye jamono ji nga koy jàng alxuraan ngay jàng alxuraan ngay jàng muy wéetal suñu borom yàlla maanaa ñun néew bii lañ bëgg nga wax ci ay mbiram man néew bii tëdd fii nii soxla njéggal soxla yërmande ba noppi ñu koy waaj a laaj dañoo soxla ku ko ñaanal yàlla dëgër lamiña loolu la sallallahu alayhi wa sallam doon def loolu la doon def sallallahu alayhi wa sallam tey jii boo fekke woon ab rob tey nga def ko fa mbaa nga wax ko fa daane ah ngeen baal ma kat waaye néew bii dama bëgg ngeen jéggalul ko te nga xam ne da ngeen koy ñaanal yàlla saxal aw lamiñam ñu noppi nit ñaa ngi séentu leneen la waxaat boo noppee bëgg a ñibbi maanaam dañ naan waaw bi mu néew moom ndax la ndax lan sunna su tumuranke sallallahu alayhi wa sallam suma su suma na sunnaam dafa tumuranke waaw dafa tumuranke waaw sunnaam dafa tumuranke ah moom ah lii la daan def salaatu lii la daan def ci rob yi ñaata saxaaba ñoo faatu ci ci jamonoom lii la fa wax kon li ma yóbbu woon fii lépp weesuut wal yaafu wal yasfaxu alaa tuxibuuna an yaxfira allahu lakum wallahu gafuru rahim yàlla ab jéggalekat la waaye ku bëri yërmaane la yàlla nanu yàlla sa borom jéggal yàlla nanu yàlla sa borom yërëm borom bi nee na inna alladina ñi nga xam ne yarmuuna al muxsanaati dañuy tuumaal ñi sëŋewu jigéen ñi nga xam ne dañoo sëŋewu am ay woroomi kër te seen bopp alxaafilaat yëguñu lu gaal gi riir alxaafilaat yëga di lool lii ngeen leen di tuumaal sax nekkul ci seenum xel almuminat doon ñu gëm yàlla ñii def loolu day lu'inu rëbb nañ leen fi dunya ci addina wal axira ñii liñ leen dal doy na war de rëbb nañ leen mooy yàlla soreel na leen yërmaandeem yërmaande ji ñu doon wax nii borom bi neen soreel soreel naa leen saa yërmaande addina ak al axira te walahum adabun azim mbugal mu réeréeré mi leen di xaar kañ yawma tashhadu alayhim bis bi nga xamee ne dana leen seede alsinatuhum seeni làmmiñ yañ doon wax yañ doon waxe wa aydihim ak seen yoxo ya wa arjuluhum ak seen tànk ya bi ma kaanu yaamaluuna ca la nga xam ne ña ngi ko doon jëf yëfi dana doy waar di mbaa xalaat ngeen ci lii nii ah daa am benn jaam bu wax yàlla ne ko dama bëgg nga bàyyee ma ak saa bopp saa bopp seede ma saa bopp ma doy ci saa bopp mu ne ko bismillahi daal di tëj gémmiñ ga bàyyi cëre yi ñuy wax tànk ba naan maa def lii loxo ba naan maa def lii ay cëram di wax ay cëram ci boppam yowmal qiyaam sa cër yi ci boppam ñooy wax ah sa làmmiñ wii ci boppam mooy wax lam doon wax bi muy nekk àddina yowmal qiyaam sa loxo bii ci boppam bu dee mas nga cee dóor nit mooy wax ne yàlla maana bi sàngam maa masa pes bu fekkee mas ngaa dóor nit ci lu dul yoon mas ngaa jam nit mas ngaa rey nit loxo ba ko defoon mooy wax loxo bee wax de du yow yaay wax ci salaam de maanaam làmmiñ yi mooy wax ak ak ak lan ak loxo yi ak tànk yi tànk yi ñoom dañuy wax maanaam bi sàngam dem nañ dem nañ barab sàngam ah loolu sëñ bi garaaw na man bi sàngam dem naa ca stade ba fanaan fa ngir ay musique fanaanee fecc man mi man tànk yi maa fanaanee fecc keroog ah man mi maa nekkoon mbër sàngam ci tànk bii ci lañ galgale woon diw ci tànk bii lañ ko galgale woon man tànk maa ko galgaloon mu taa mu daanu mbooloo ma yuuxandoo ci lu dul yàlla bég ci lu dul yàlla man mii la woon ay yow xaw foo jëm xamaloo mujj wax dangay mujj mere sa bopp wa qaalu li juluudihim lima shahidtum alayna lan moo tax ngeen ñëw ba fii ngeen nuy seede dinu waxal loo xam ne arrangé wunu cër yi daal di wax ne antaxana allahu alladi antaxa kulla shay nun kat suñ borom mën a wax loo yàlla bu ne woon lii waxal mu wax lii su ko waxaloon mu wax donte bindoowul wax sa cër yi nii nii bu leen yàlla waxloo dañuy wax ah antaxana allahu alladi antaxa kulla shay wa huwa xalaqakum awwala marra wa ilay turjawoon wa ma kuntum tastatiruun an yashhada alaykum sam'ukum wala absaarukum wala juluudukum walakin zanantum anna allaha la ya'lamu kathiran mimma ta'malun wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasirin waaw man est-ce que man mii di wax ak yéen ñii xalaat naa ne bis penc saa loxo yi dañuy wax ndax xalaat naa ne bis penc saa tànk yi dañuy wax gis nga nit alxuraan mii doo nga ko mën a yar képp du leneen beneen téere boo mën di jàng sëgg ci guddeeg bëccëg mënut sellal sa bakkan bi mënu laa teg ci aw yoon wax la li nga war a def lu may téere bi yàlla bi téere bi moo lay wax li nga war a def di la tëkku ngay tiit mu di la bégal bu fekkee ne da ngaa ragal yàlla yàlla na ko yàlla sama borom may ak ragal yàlla borom bi ne ne yow ma tashhadu alayhim alsinatuhum bisa ngi ñëw boo xam ne seen làmmiñ yi moo leen di seede wa aydihim ak seeni loxo wa arjuluhum ak seeni tànk ci lan bi ma kaanu yaamaluun lañ doon jëf al yawma naxtimu ala afwahihim loolu mooy surtu yaasin tey jii la ñuy tëj lan gémmiñ lu ko taxoon a jóg wax tey amu fi place ngir wax tey am na yeneen yu ñuy wax loo yu bokkul ak moom ndax nit boo ko bàyyee muy wax mën na jéem a layel boppam naan waa tànk bi boo gisee mu demoon stade ba fanaan fa itam boobu loolu moo amut al yawma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kaanu yaksibun ay ko xalaat bi mbokk yi ndax noonu noo ngi xalaat lii lii ndax noo ngi koy xalaat yàlla xam na ne ku dul xalaat lii nit nit nitewoo sax nitewoo yàlla xam na ko laa wax yii ku jurul xalaat nga xam ne lii luy am la loo xam ne dara mënu koo dindi dara laa wax wirgil mënu ci rek parce que yàlla moo ko wax wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla laa mubaddila li kalimaati dara mënu koo dindi dara bokk na ci mbaaxu yàlla mu nuy wax lu mel nii borom bi nee na yawma idin su kere su su keroogee yuwaffihimullah diinahumul xaq yàlla sa borom subhaanahu wa taala matalal leen deena seenu pay diin fii mooy aljaza mooy lañ la war a fay ñu fay la ko ba mat sëkk ndax payug dëgg la goo xam ne falaa yaxaafu zulma wala haduma jinne yi la ñu wax waaye falaa yaxaafu baxsa wala raxaqa lu ko jiitu fa man yu'min bi rabbi xam naa lay doon falaa yaxaafu baxsa wala raxaqa maanaam keroog loo ma sa def lum tuuti tuuti tuuti tuuti ci lu baax kere nga koy gis in taku mithqaalu xabatin min xardal fa takun fi saxra aw fi samawati aw fi l ardi yati biha allah wa nadacu almawazina alqista li yawmi alqiyama fala tuzlamu nafsum shay'a wa in kaana mithqaala habba min xardal atayna biha wa kafa bina xaasibin ah kafa bi nafsika al yawma alayka xasiba yàlla noppi na lëg yowmal qiyaam kenn ku ne boo ñëwee ah du sàmba du demba yawma ta'ti kullu nafsin tujaadilu an nafsiha tujaadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun fii ngay nekk di wëreelu rek di taxawaalu di tañaxu wan ginnaaw téereb suñu doom yàlla bi bali lay dal dal la waaye yàlla lim la war a wax lépp wax na la ko fii lépp yàlla sa borom wax na ko borom bi nee na yawma idin yuwaffihimullah diinahumul xaq bis boobee nag su agsee keroog lañ leen di tawfiya wax faa yu wax fii tawfiya mooy ñu jox la ba mat sëkk sa pay gi nga xam ne payug dëgg la maanaam naax saayut te yàlla mi nga xam ne moo la koy fay maanaa dara daal la xuut fi moom fa man yaamal mithqaala darratin xayran yarahu wa man yaamal mithqaala darratin charran yarahu borom bi ne wa yaalamuuna su boobaa danañu xam ñoom nit ñi ne ann allaha yàlla xoo moom dong alxaqul mubin mooy dëgg gu fés gi maanaam yàlla mooy dëgg gu leer naññ naññ naññ goo xam ne amul nattable ah xoolal ni mu waxe lii wa yaalamuuna ann allaha alxaqu waxu ko de dafay jaaral damil fasl ñu ngi mel ne inna hada lahuwa alqasasu alxaq dégg nga wa yaalamuuna anna allaha foofa nag la ñëpp xam ne yàlla ndekete mooy dëgg gu bir gi gu leer naññ goo xam ne nattable ndekete amutoon ci moom nattable amutoon ci lim doon wax na ñëm suuratul araaf hal yanzuruuna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wilu yaqul bis bis buñ demee ba maanaam yawma ya'ti ta'wiluhu bi maanaam mbooleem yi nga xam ne yàlla da ko doon wax buñ demee ba mu fireeku yawma yati tawilu muy maa yaulu ilayhi ña nga xam ne yaqulu alladina nasuuhu min qablu ñi nga xam ne ñoom dañ koo fàtte woon dañ koo bàyyi woon li jiitu tey lu ñu wax ndekete qad jaat rusuluna rusulu rabbina bil xaq ndekete sunu yonantey boroom yi liñ indi woon lépp dëgg la rawatina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ñoom nekkate alxuraan lu ca nekkoon rek lépp lépp lépp dëgg la ah wonu qad jaat rusulu rabbina bilxaq fa hal lana min shufaa fa yashfau lana ndax tey danañ am ñu ñu war a tinu ñu ñu war a ràmm ba man ñoo ràmm loolu ñoom ñoo koy laaj wala nu delloowaat nu àddina aw nu raddu fa na amal ah xayra alladi kunna na amal ku ci topp ñooñu ñàkk nañ seen bopp xad xasiru anfusahum wa dalla anhum ma kaanu yaftaruun ah bokk na ci mbaaxu yàlla wallahi bokk na ci mbaaxu yàlla alquran di la wax li nga war a def di la wax démb di la wax tey di la wax bis penc alxuraan danga koy jàng mel na yaa ngi bis penc laa wax day mel na yaa nga bis penc ndax la fay xew lépp yàlla nga la koy wax borom bi nee na alxabisaatu lil xabisiin waad yu bon yi alxabisaatu muy alkalimaatul xabisaat foo fekk wax ju bon ñu bon ñaa koy féetewoo lil xabisiin ah baat yu bon yi ay jëw ak ay rambaaj ak ay fen ak yooyu moom lil xabisiin nit ñi nga xam ne ay xabisiin lañ ñoo xam dañoo baaxul ñoom ñooy féetewoo lu mel noonu wal xabisuuna ñu bon ña ñooy féetewoo lil xabisaat yu bon ya ñu bon ña ñooy féetewoo yu bon ya ñu bon ña ñooy féetewoo yu bon ya foo fekk yu bon yi moo xam njaaloo la moo xam fen la moo xam jëw la ñu bon ña rek ñoo koy féetewoo wa tayibaat foo fekk alkalimaatu tayibaat allahu akbar subhanallah la ilaha illa allah allahu akbar ah baat yu teey yooyu noonu ñen ñoo koy moom li tayibiin ñu teey ña ñi nga xam ne ñu baax lañ ñooñu foo leen fekk ñoom ngay gis seen kàddu ya yu baax lay doon lu baax la ñuy wax duñ jëw duñ rambaaj duñ fen ndax lu tax dañoo nekk ay tayibuun moo tax yàlla féetal leen ak at tayibaat yu baax ya ñu baax ña yu bon ya ñu bon ña borom bi nee na ulaika ñoo ñi nga xam ne ndeysaan sëgg nañ ci seenu der lu nañu wax leen ko lu nañu yekk leen ko mubarra'uun mubarra'uun ñu ñu setal lañ yàlla suñu borom waaw su nee Aïcha man man man lay yii nii tax naa maanaa daanaka rek foo ko tegoon rek da da da léegi léegi da da koy da koy da koy jege maanaam xoolal suñu borom yàlla Aïcha mi muy wax ci moom soxna su yonente bi sallallahu alayhi wasallam mi muy wax ci moom nga xam ne fukki laaye sëriñ bi yoo xam ne ci moom rek lay wax ba muy jeexal mu ne ulaika ñoo ñii ñu sëggoon ci seeni der di leen yekk lu mel nam xeme mubarra'una mimma yaqulun laalu ñu dara ci lañ doon wax lañ leen wax lañ leen wax dara ci laalu Aïcha loolu dara ci ñu doon wax fen rek lañ doon def tuumaal dong lañ ko doon def sosal dong lañ ko doon def mësta séq ak góor dara safaan miñ ko doon tuumaal itam mësta séq ak jigéen dara jukalewut safaan sax nee na man man man li ma yàlla kii baaxe ma man koo waat ci yàlla mooy mësumaa xam kumbas jigéen far waaw lu jigéen woddoo sax daa kumbas xam far benn yoon ku mel noonu baax baaxee noonu sëñ mi sëgg ci deram ah moo tax gaa yi ñi ñi ñi jot a duma Hamnatu duma nañ ko Hassan duma nañ ko dégg nga ma ak Ablaye moom moom du laluñu ko moom ndax kooku ëpp na ndax ndax bu fekkee duma yi li muy jariñ mooy ñu laabal la kooku moom dootu ko taxut mu laab buñ ko duma woon téeméeri yar juróom-ñett fukki yar taxut mu laab moo tax ñettee da ko bàyyi moom lalu Ablaye mu Ubay moo jiite mbir mépp yonte bi da ko bàyyi duma wu ñi des ñëpp nag duma nañ leen. ah lahum maghfira suñu borom nee na ñooñu nga xam ne dañ leen doon tuumaal di leen yekk lu mel nam xamee lahum maghfira ak njéggal yàlla jéggal na leen seeni bakkaar ah yemu ci dee waaye wa rizqun karim àjjanaa ngi leen di xaar wërsëgu tedd mi ngi leen di xaar Aïcha kon yow mi nga xam ne ab chiiwi nga ab chiiwi nga bokk ci chia yi dégg nga ñu ñu ñu ñu sol sa nopp yi dégg nga ma lu ne ba nga jàpp ne Aïcha radiyallahu anha daa bokk ci ña yiis jàngal laay ji suñu borom yàlla nee na Aïcha bokk na ci ñi ma ñi nga xam ne dig naa leen ak njëggal waaye dig naa leen wërsëg woo xam ne wu tedd tedd la yàlla nu yàlla sa borom subhanahu wa taala moom tam baaxee nu maghfira wa rizqun karim moo tax mbokk yi tuuma tuuma tuuma tuuma mënta ñàkk de léegi ñu tuuma la de. waaye nag wolof yi dañuy léeb ñu ne maana buñ la tibbalee ci maana gaalu xamalan kaamu gaalug lan këlb gisoo ba turu xam naa ko dama koy bàyyi ma maanaam borom ñeenti tànk yi la ko olof di wax pour mu gën a kii buñ la buñ la buñ la tibbalee ci gaalu borom ñeenti tànk yi luñ ci wax buñ la ca fekk loolu rek la buñ la ca fekk am da waaye xaw ñu dimbal la ci ne moom ni gaa yi ndab yu baax yëpp duñ la ci tibbal de duñ xool ndab lu baax ñu la ci tibbal de dañu xool ndab ndabul këlbu ñu la ci tibbal waaw dañ lay wax yu doy waar sax yoo xam ne maanaam mësta tequ sa xel mi mëstoo koo xalaat waaye ñi nga xam ne ñooy tuumal jaami yàlla itam nañ bàyyi xel de ëllëg yomal xiyaam waaw laay ji suñu borom yàlla wax fii day raay ju tiitlu la yal nañu yàlla sa borom defal dégg ak topp wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin